ndax askanam mi ngi daanoo ci abdu manaaf ñi maamu yonantu bi sallallahu alayhi wa ñu woxoon ni lu tax ñu koy askanalee ci shafii yu maamam boobu nga xam ne mooy shafii ibnu saib euh, ibnu ubayd ibnu abdi yazid ibnu hisham ibnu muttalib ci maamam boobu lañ koy askanale waxoon nañ ni tamit juddoom gaay werante nañ fan la ñi ne Gaza la juddoo ñi ne Asqalaan ñi ne Yaman almuhim mi ngi juddu ci atum téeméer ak juróom fukk ginnaaw gàddaay ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bis wax ni ci la Abu Xanifata an-Nu'man ibn Sabit radiallahu anhu génn àdduna moom nag yàlla dogal mu teel a jàngal Qur'an ginnaaw ba maanaam teel a jàngal Qur'an ndax xam ngeen ni euh, way juróom bu góor moo njëkk génn àdduna way juróom bu jigéen ba way juróom bu góor génnee way juróom bu jigéen jël ko <coughs> yóbbu ko màkka mu nekk xale ñaari at euh, mu dellu ci biiri mbokkam ñi nga xam ne ñoo kurashi yi na yi ci la jànge alquran mokkal ko mokkal mu watta ni ki noonu <coughs> jàng lugal arabiya ci xabila boobu ñuy tuddee xabilatu zuhayl ko mokkal ko lool lool sax loolu ku liir ay mbindam di nga ko xam ci la tukkee nag tukki yu bare bari ngir sàkku xam-xam jóge na Makka dem Madina eh, ginnaaw gi maanaam jugeen eh, diggante Makka ak Madina daal jaabante na ci ndax dem na fa jàng fa alquran bokk na ci ñi nga xam ne jëlee na ci ñoom xadis ak fiq Sufyaan ibnu Uyayna as-Sawri Sufyaan ibnu Uyayna kon moom mi génn àdduna téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci kibaaru taabi'i taabi'iina yi la bokk imaam la woon ci xadis ak xam-xam bokk na ci Muslim ibnu Xaalid Zanji kooku lañ daan woowe faqihu Makka ginnaaw gi mu dem Madina jàngee ci imaamu Malik radiyallahu anhu imaamu Malik moom nga xam ne mi ngi génn àdduna mille cent 79 ci moom la jàngee Muwatta ak yenn fataawaay yi ci wàllu fiq euh, ginnaaw gi mu dem Yaman bu mu demee Yaman nag ginnaaw ba imaamu Malik génne àdduna ci la dem Yaman ginnaaw ba imaam mm, Malik génne àdduna mu dellu Màkka jóge fa dem Yaman jël fa ci boroom xam-xam yi nekkoon foofu kon am bëri na ay jaaruwaay jugee na yaman itamit euh, dem Bagdad fekk fa Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani ci nga xam ni génn àdduna ci atum téeméer ak juróom-ñett fukk ak moom taalibe imaam Abu Hanifa la woon loolu ci xilaaf ak Harun ar-Rashid la woon moom Harun ar-Rashid la génn àdduna euh, ginnaaw loolu تي بغداد نك فوف لا محمد بن الحسن جلتي موم خم خم أه، جلتي موم خم خم جلتي موم خم خم تي مرحلة بوب نك تي لا <coughs> تي لا جانجي تي اي بروم خم خم يباري كماني وكيع بن الجراح خمني بوكو نتي اي ويام صح سكوتو الى وكيع سوء حفظي سوء حفظي فارصدني الى ترك المعاصي Waki' moomu lay wax bokk na ci ñooñu tamit Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Saqafi bokk na ci Ismail ibn Ibrahim al-Basri ñu gën ko xamee ci Ibnu Ulayya ñu bëree bari te ñii ñëpp ñu ngi bokk ci borom xam-xam yi ñu tuddee al-Iraqiyun ginnaaw gi ci la dellu si Makka ginnaaw ba sëriñam boobu di Cheikh Mouhamadul Hasan génne àdduna mu dellu si Makka def fa ab diir ba mu fa defee ab diir nag gaa yi xam ko ci jotaayam mu di fa jàngale fiq ak fonki usulam ba ñëpp xam ko moom Shaafi yi nga xam ne moom dafa dajale woon diggante fiqu Madina ak fiqu euh, ahlul Iraq ñu bëree bari ci borom xam-xam yi jàngee ci moom ku ci mel ni al imam Ahmad ibnu Hanbal ak al imam Ishaq ibnu Rahawi ginnaaw gi ci la delluwaat Baghdad euh, ginnaaw ba mu delloo Baghdad ci la dem Makka boog laa bëgg wax ba mu demee Makka delluwaat Bagdaad beneen yoon ci la bind téeréem boobu ñu doon tuddee xujja comme ni niñ ko jànge woon te bind risaalatu bu njëkk ba ginnaaw gi nag ci la commencé di dem ci capitalu dëkk yi yu bare bari ba mujj sax Misra ba mu saxee Misra nag mu ñëw dajale xam-xamu Xijaaz ak Yaman ak Iraq yëpp دك شي تاليف مذهبم تاليف كتاب الام بيغا خامني موي بو بيس رساله بيغا خامني موي رساله جديد كون لول ييب جانغون نانكو مين генا دونا شي 204 شي غدا يونتو بي صلى الله عليه وسلم كون فين ورا دالي موي سناء العلماء عليه ومنزلته بينهم تاغ ييغا خامني بروم خام خامي تاغ نانكو امام الشافعي اك دايو الشافعي ام شي بير بروم خام كان لحرص الإمام الشافعي على العلم وأهله أثر في ثناء العلماء عليه خير بيغا خامن إمام الشافعي خير نكو تي خام خام اك نون خام بو اك بوروم خام خامي مو ديفون جيخيتال بو ري تي بوروم خام خامي ديكو تاك ورفعتي منزلته بينهم اك درجه مكوي تي سين بير ولم يكن ذلك منحصرا في طلابه تك يوي نك يموتون رك سي اي طالبهم وتلاميذ طلابه ساك كات خام خام نيو سي موم اكي طالبهم بعل آه، وحسب وحسب يموتون سي نيوم دون وانما كان ذلك في مشايخه واقرانه اي سرينم اكي ما سام سي جانغ نيوم نيب تاغون نانكو فقد فرض نفسه بينهم بعلمه وادبه وسلوكه الحسن ده daf leen gaaral bakkanam maanaam dafa nekkoon koo xam ne ku teggin woon la ci xam-xamam ak jëflante bu rafet bi nga xam ne mu ngi ko doon jëflante ak ñoom fa an ishaq ibnu rahawi annahu qaal kunna bi makkata wa shafiiyu biha wa ahmad ibnu hambala biha fa qaala li ahmad ibnu hambal ya aba yaqub jalis hada arrajul yaani alshafiiya قلت ما أصنع به وسنه قريب من سننا أترك ابن عيينة والمقبري أترك ابن, ابن عيينة والمقبري إسحاق ابن الرهاوي نينا دفع أم جامعنا منك مكة جامونو جوج إمام الشافعي من مكة وإمام أحمد بن حنبل تمت من مكة mu ne imaamu ahmad ne ma yow aba yaqub del toog ak góor gi góor googu mooy imaamu shafii mu ne ko lan laay def ci moom ndax ay atam jege na suñuy at ndax dinaa bàyyi ibnu uyayna sufyaan ibnu uyayna ak al maqburi yi di dem toog ci waaj yi nga xam ne daanaka suñu moroom la fa qaala mu ne way xag fa qaala mu ne way xag toskare ñeel na la inna zaaka yafuutu wa za la yafuut fa jaalastuhu mu ne imaamu ahmad ne ma toskare ñeel na la toog ak imaamu daf lay faat te toog bi nga xam ne danga koy toog ak sufyaan ibnu uyayna ak almuqbari du du faat mu ne ma dem toog ak moom loolu dafay tegtale daraja bu kawe bi imaamu Shafii amoon loolu boo demee ci aadaabu Shafii wa manaqibuhu page 33 di nga ko fa fekk وعن أحمد بن حنبل رضي الله عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال كانت أف أقفيتنا أصحاب الحديث في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي رضي الله عنه فكان أفقه الناس في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث من آه، إمام أحمد بن حنبل من أقفي أقفيتنا maanaam ahlul hadis ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a dégg diine ci seen ñoom mu ne mi ngi nekkoon ci loxol abi hanifata mësta da jógee ci ay taalibeem ba keroog ñuy gis imaamu shafii yi mu ne imaamu shafii yi nag moo ñu gënoon a dégg téereb yàlla bi gënoon ñu dégg sunna yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne ma kaana yakfihi qalilu talabi fi lhadis وقال ko won lu tuti lu ñuy sakku ci hadith منذ 40 سنه فما كان فيهم يعني الفقهاء اتبع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم امام احمد نه دي نين فكي اتاغي ني ماغي جولي الامام الشافعي amutoon ci suñu biir ku ko gën a dégg xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gën koo topp xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw ci juróom-benneelu ponk bi mooy musannafatuhu xeyru ma zukir téere yim taalif yi nga xam ne euh, bokkut ak yiñ tuddoon ci ginnaaw muy alxujja al risala ak al al umm من من المصنفات الذي ذكرها أهل التاريخ للإمام الشافعي ولم تصل إلينا بوكنا سيتيري ييغا خامني أهل التاريخ تودل نانكو إمام الشافعي تا ñun jotuñ ci bu ci njëkk mooy kitaab al mabsuut téere bi ñu tuddee al mabsuut loolu boo demee ci al fahras bu ibnu nadim page deux cent soixante di nga ko fekk muy tudd téere boobu mu ne walaysa huwa gayru kitaabil um am ñu ne du beneen téere bu duwut kitaabul um wa innama utliqa alayhi hada al ism dañ ko tuddee tur boobu li annahu min riwayati tilmisihi alxasani alzafarani ndax mi ngi bokk ci riwaaya ab taalibeem bi ñuy tuddee alxasani alzafarani yi moom xasan alzafarani mi ngi génn àdduna atum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ginnaaw gàddaay yonontu bi salallahu alayhi wa sallam فلما رجحه غير واحد كما رجحه غير واحد من المعاصرين كم نيغا خامي ñu bari ci muasirina yi wéral nañ loolu ne kitaab al mabsuut mooy kitaabul um bokk na ci ñu ko wéral al allaama muhammad abu zahra ci téeréem bi mu tuddee ashafii page cent trente sept jàpp cent trente neuf cent trente huit jàpp cent trente ñaareelu téere bi ñi bi ñuy askanale imaamu Shafii mooy kitaabu sunan boobu téere boobu nag mi ngi ñëw ci riwaayatu xarmalata ibnu Yaxya al Misri xarmalata ibnu Yaxya al Misri ci taalibe mi la mi ngi génn àdduna deux cent ci gàddaay gi wa huwa yaxtawi ala fiqhi al imaam Shafii mimma fi l فقه الإمام الشافعي بنكش كتاب الأم وزيادات كثيرة أك أي دولان تيوباري باري من الأخبار في أي حديث والآثار أكي حديث بطي والمسائل أكي مسألة أخبار من نك حديث ينونتو أك وخو صحابي آثار نك وخو تابعي ليدون كن تيري بوبلو الموفنك ومن مصنفاته التي وصلت إلينا وهي ضمن كتابه الأم إنما أفردناها للبيان والتصنيف ما يلي من بوكنا تي تيريم ييغا خامن جوت نانتي تيري يوي ييب نيغي دخانيو سي كتاب الأم دنج كو روتال في نا غير ليرال بي سي نجيك مو اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى بوب مو سي نجيك وهو من تصنيف محمد بن حسن الشيباني لول تي تاليف محمد بن حسن الشيباني لا ثم جاء الإمام الشافعي فأعاد تصنيفه بإمام الشافعي ومبام والتالفه أه، مبينا فيه اجتهاداته مليرالت أي غرغر لوم وترجيحاته أكيم ورل نيرال بموي اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ووتك إمام علي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وقد جمع الإمام الشافعي فيه المسائل التي خالف فيها فقهاء العراق عامة والحنفية خاصة الصحابيين الجليلين في تيربو مو اختلاف علي وعبد الله بن عباس امام الشافعي دفت دجل اي مسألة يو خمني فقهاء العراق دنشي ووته واي دنشي ووته اك حنفيه روتنا نياري صحابي مو سيدنا علي اك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ñetteel bi mooy kitaabu ixtilaafu malikin wa shaafi'i téere bi nga xam ne wuuteeg malik ak shaafi'i ñoo ci nekk imlaan ala tilmidihi arrabiu almuradi téere boobu nag imaamu shaafi'i daf ko dicté woon taalibeem bi ñuy tuddee euh, taalibeem bi ñuy tuddee arrabi almuradi waaw ñeenteel bi mooy كتاب الرد على محمد بن حسن الشيباني تيري بيغا خامني داف رد محمد بن حسن الشيباني سيري لون وذلك في مسائل متنوعه من ابواب القصاص والديات تي اي مساله يو ووتي لا نك تي بونت قصاص اك ديا جروميل بي كتاب سير الاوزعي ناقش فيه اجتهادات الامام الاوزعي في احكام الجهاد ومسائل دفتي دون دف مناقشه اي E, e, maanaam munaqashaat yoo xam ne daf ko ci doon def ci atte yi nga xam ne ima ijtihaad yi nga xam ne imaamul Awzaa'i yi def na ko ci attey jihaad ak ay masalaam kon yooyu moo gën a siiw ci yi nga xam ne imaamu Shaafi'i yi bind na ko ci ay téere loolu moom moo ci gën a siiw kon foofu la ñuy taxaw dars bi ñu ñëw ci li ñu tuddee أطوار المذهبي ومراحله التاريخية أنا أتاب ينغا خمني مذهب الشافعية دخنكو أك مراحل تاريخية ينغا خمني مذهب الشافعية دخنكو ينغا خمني طور يويو طور بنجك بي موي طور التكويني والنجد أه، نعرل بي موي نقل المذهبي ورواياتي واستقراؤه نتل بي موي تنقيح المذهب وتحريري وتحريره ما بين عامي 505 و 1004 نتي تورو يوي موي نتي نجكي نتل بي موي خدمة المصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب نتي اتاب يوي لتيري jaar incha allah loolu mooy doon suñu dars bi di ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.